alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabi rahma wa kashifil ghumma wa shafi'il umma sayidina muhammadin wa ala ali wa sahabatihi al wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmil qiyama mbokki jullit yu tedd nekk ci gox yu fasantikoo ci réew mi ak ci bitim réew tànn leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu Walfadjri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 tey nag damay ñëw ak yow rek ci ñaareel ba muy al istiqaamatu su ko defee istiqaamatu li muy tekki rekk mooy jub kocc muy sóobu yoon wu jub kocc wi suluku siraatil mustaqim kooku mooy al su ko defee muy ànd ak rëddunu sariya li sariya rëdd nga fexe ba jaar ca rëdd wa muy yoon wu mag wam rëdd lépp luy ay cël wala muy ay ñall nga teggi ko yoon wi alquran rëdd nag yonentoo ko joxoñ ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabiuhu waaye nag wala tattabiu subula fa tafaraqa bi an sabili kon fexe ba yoon wu mag wa nga xam ne fu ko alquran tudde siraatal mustaqima lay wax ihdina siraatal mustaqima wa anna hada siraati mustaqiman yoon woowa noona nga topp ca lépp luy ak sëli ya yoon yi nga teggi ko boo ko toppee rek yàqu mbooleem ñal ya nag ak cël ya ak sëli bi yoon ya seytaane ko gooral ay ay doomam ñii woo julli ñu ne leen fii la ñëw di jaar nga topp yoon ma ñu ne la déedéet fii fii moo jëm sa dëkk ba fii moo jëm kër yàlla yu bëree bëri doomi iblis ya ak iblis déggee nañ leen ba wàcc nañu yoon wa danañ doxa doxa dox ba dee duñu hegg ci bi yàlla ba duñu hegg tamit ci kër yàlla ga ba seen dund bi jeex ñi mujj perte yal na yàlla musal ñu ca moo tax yàlla ne yow yonent bi waxal ne yoon waa ngi ni le joxoñ na ko su ko defee nag yoon woowa noona nga topp ko ci lu ci lu feeñ ak ci lu nëbbu te yoon wa mooy islaam palaasam bu feeñ ba nag mooy topp sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi sunna leer na nañ yàlla ne topp leen yonantu bi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah yoonu sunna wa leer na ci lépp yonantu bi def wane na ko ci julli commencé ko ca njàpp sangum janaba ak nu ñuy jullee bam jullee ba pare mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli téere ñëw firi nam doon jullee leeral ko ci buxaari yu muslim abu daawud ak yu ibnu maja fexe ba kutubu sunna yooyu yëpp nga jéem ci xam boo xamul lépp tamit ba ma xajee màkk wax na ko xudu anni manasikakum waaye woor tamit wax nañu nañ nañ ko roog ca na muy wooree déggee nañ ko ci joxe asaka nam ko daan joxe jàng alquran nam ko doon jànge jokk bokk nam ko daan jokkee seeti ko feebar nam ko daan seetee wax lu baax nam ko daan waxee lépp luy safaan ba ñu bàyyi ko muy ñal ya ñu topp yonent bi maanaam xas wa naalin bi naalin dàll par dàll booba nag boo xàndee ku la daqa waaye fu mu teg tànkam nga teg fa sa tànk man ngaa ñàkk a hegg fa mu hegg waaye sa tànk yi moom duñ juwóorloo moo tax mamalaaji Malick góor ak yàlla ku teer ga daan wax ne yonent bi de mën na maa sut tànk waaye fu teg tànkam bu ko tegee ma teg fa kooka mooy topp sunna la bëgg la bëgg a wane kon nag topp sunna dàll fay dal nañ ko def bàyyi ca xel bu baax a baax a baax a baax ah, bañ a jeng bañ a jengal bañ a yokk bañ a wàññi nam ko daan defee rek lañ ca man tabaarakallaahu ñi def ko la mu bàyyi woon mu fexee bexe ba góor góor lu bàyyi ko kooku daal mooy istiqaamatu te mooy toppuru du sariya wi ci lu feeñ ak ci lu nëbbu lu feeñ la nag mooy dëppale sa topp gi ak sunna dàll par dàll yonentu nangul mu sut la jéegu waaye bul nangu mu dëgg fu mu dëppoo dëggut fu dëgg rek yow maanaam dëgg ca topp ko noona su ko defee nag istiqaamatu googa la yàlla tënk ci suratul anaam mu nekk fukki jikko fukki jikko yi ku ca ne rek bu ñuy limati ñu jub ñi ci mi nañ la ca boole buñ koy limati ci dëkk bi nañ la ca boole buñ koy limati ci famille bi nañ la ca boole waaye fukki jikko yi ma bëgg a lim alquran lim ko ci suratul anaam ah ku ko manqué wala nga manquil ca bu ñuy limati ñu dëng ñu ci dëkk bi nañ la ca boole bu ci njëkk yàlla wax ci alquran ne yow yonent bi waxal nit ñi ne leen qul taalaw atlu maa harrama rabbukum alaykumu tee yéen jaami yàlla yi ñëw leen ma jàngatal leen li yàlla xaraamal ku ko bàyyi jub kocc ku ko topp dëng ba raw xala ñu ne ko bu ci njëkk mu ne allah tushriku bihi shay'an bu leen bokkaale yàlla dara bu leen ko bokkaale ci wax bu leen ko bokkaale ci jëf bu leen ko bokkaale ci pas-pas bu leen ko bokkaale ci astu jaamu gi ngeen koy jaamu di ko xàndal ak leneen moom rek kese ñaareel ba mu ne wa bil waalidayni ihsaana na ngeen rafetal yéen ñëpp jëmee ci seen ñaari waajur yi ñaari waajur yéen ñëpp ko am rafetal jëmee ci sa ndey jëmee ci sa baay kenn rek moo ci xamoon mooy yonentu yàlla Isa moo tax mu ne wa baram bi waalidati amul baay su ko defee kon nag euh, euh, ñi ci des ñëpp kana adama moom yàlla ko rek ci euh, inna masala isa inda laa ka masali adama xalaqoo min turab suma qaala lahu kun fa yakun xawaa moom bàyyi la xam waaye amul yaay ñi ci des ñëpp nag am nañ ndey am baay yàlla ne rafetal leen jëmee ci seen ndey yi rafetal jëmee ci seen baay yi rafetal gën a da bañ ba nakiiraal ko sa yaay di wax noppeegul nga wax mbaa sa baay ñaawal nga muy wax nga dagg wax ja ñaawal nga tabaarakalaaw nga xëy nuyuwoo ko ñaawal nga nga ne yaa ngay tëdd nuyuwoo ko ñaawal nga ngay dox ànd ak moom te dugul lëndëm nga jiitu ko ñaawal nga buy lëndëm mbaa muy fa am kàmbu jiitul booy surax nga surax moom mu mucc bu lekk li teg bool bi nga njëkk a mos ñaawal nga bàyyil ba sa yaay wala sa sa njëkk a lekk ba pare nga door di lekk ngay lekk tamit and ak sa papa ci biir bool bi ngeen jàppoo ganaar gi léegi léeg nga jël fa gën a baax xëpp ko doole dagg la gën a rëy lekk ko ñaawal nga yow da ngaa war a xool fi ngay lekk rek am bàyyi ñoom ñi lay daggal loolu da daan mag ñi ci la yaree woon seen doom yi mu yar bu baax bu rafet a rafet a rafet waaye léegi nag dangay ngay toog sa paa bi ah dooma jot li nekk sa kanam wala paa bi wax nga ne ko gisee wu ko noonu wala nga ne paa bi dafa bëri wax mère bi dafa compliqué nangam ak nangam yooyu yëpp ñaawal nga kon rafetal jëme ci sa waajur lu jafe-jafe la yàlla na wabil waalidayni ihsana wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wabil waalidayni ihsana waabudullaa wala tusriku bihi shay'an wabil waalidayni ihsana kon rafetal jëme ci sa waajur ci sa wax ci sa ci say ñaan sax yàlla ñuy ñaan ba niñ leen ñaanalee wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ne yow yàlla sama ndey ak sama baay yàlla nga leen yërëm comme ba ma nekkee ndaw ñi may teete niñ ma yërëmee woon bëgguñ dara dal ma bu suma bu ma bu ma yàqee sama bopp ñu tàggug seen sago bu samay nelaw yu jeexee ñu tàggug seen sago su may jooy ñu jug boot ma di wëraalu di doxantu ba ma nelaw ñi door a maanaam tëdd yi nelaw niñ ma yërëmee woon yow yàlla yàlla nga leen ko yërëmee bu leen ko yàlla yërëmee ngi dem aljana kon doom mënta fay waajuram lu mu ko def rek avance la waaye fay ga man taxam lu dul la yonent bi waxoon nga fekk leen ñuy kuñ moom nga jënd leen goreel leen foofa rek lay lay xaw a niru fay kon nañu rafetal jëmee ci waajur yi ci wax ci jëf jamono ji nag doom yu bari ñàkk kersa ñàkk teggiin ñàkk xorma ci seeni waajur yi gàtt wërsëg teel a dee dem safara rek lay jural nit ki képp ku sàgganee say waajur teel a dee gàtt wërsëg dem safara kenn mënu ci dara sëriñ mënu ci dara mbaa nga jël sa sëriñ teg ko ci sa maqaamaab waajur wi te sëriñ bi le ba nga koy xamak yaa ngi toll ni nga toll bala kenn xamagut kala toppatoo ba sëriñ bëgg la mbaa jigéen bëgg la sa waajur la kon boo jëlee sa sëriñ teg ko ci sa waajur perte nga bu ñu koo remplacer boo fi jëlee sa jabar jële nga xam ne bu la sa ndey sa baay toppatoo ko doon doo fi nekk kuñ kuñ kuñ fi taxaw ba ba jigéen ji la bëgg te ko cay teg tamit perte la kon nag euh, kenn ku ne ci ñoom am na xaq sëriñ am na xaq nañ ko ko jox soxna ya am nañ xaq nañ leen ko jox seen xaq yëpp buñ dajee xaq waajur a ca gën a rëy nañ ko ko jox ba mu mat sëkk koo xamul ngërmande waajur sëriñ mënu ci dara torox rek dara nga ci mën sëriñ bu lay defaroo moo fi ne waaye sëriñ bu lay defar xamu fi sëriñ bu mën a defar ko amul ngërmande waajur xamu fi moo tax Cheikh na Tidiane boole ca sartay tariqam bi ne même boo doon wirdo moo xam foo mën a toll astaghfirullah salaatul fatihi laa ilaha laa sa baay waxee la mbaa sa teel kurus ga tontu leen ba seen wax jeex bu jeexee fa nga xemoon nga continuer fa dara waru ci waaye bu doon ab gumba bu bëgg a daanu ci teen safara bu bëgg lakk dëkk wala mu bëgg a lakk nit oto mu bëgg dal ci kaw nit da ngay wax ñaari baat su jariñee baax na dara waru ca boo fekkee jëriñut waxal lu ëpp ñaari baat wir doo wa yàqu nga commencé at bees mais tontu sa ndey tontu sa baay amul limite seex nee na feeg ña ngay wax waxal buñ paree nga door a continuer fa nga xamoon yàqu dara ca wir doo wa kon waajur fonk na ko kon fonk na waajur bàyyi leen ci xel léegi nag tabaarakallaahu ko fi topp sëriñu seen waay ñu teqale nag sa waajur yi nga nekk ca ñoom di la di lagar lagar yi ba dee sa dund bi perte ña nga woon ak ñëpp raw la nga torox te loolu nag dara jëru ko kon nañ fonk waajur yi bu baax a baax ñaareelu euh, sarta ba tabaarakallaahu ci maqaama istiqaamatu li nga xam ne mooy ñaareelu maqaama ci islaam mooy maanaam rafetal jëme ci sa waajur moom la alquran ne wa bil walidayni ihsaana ñetteel ba tamit mooy buy rey sa doom ngir ragal ñàkk moo xam ñàkk gu teew la wala ñàkk gooy séentu ñàkk gooy séentu nag mooy tey dama ndee ragal naa ne su ma fi xamee lu ëpp ñetti doom ñeent juróom dama leen mën a dundal kon naa fexe ba ñëw war a ñëw bu ñëw wala naa fexe ba nga ñëwagum sax ma wàññi leen kooku xaraam na wala taqtulu awlaadakum min imlaaqin am na ay ju ne xasiyata imlaaqin yàlla ne nahnu narsuqukum wa iyaahum xoolal yàlla nee na ñi ngay ragal ñi ñëw maa leen wërsëgal doon laa wërsëgal yow seen seen seen seen wërsëg yi benn bu ne numéro la bokkut ak moromam kon nag tabaarakallaa wa am benn doom ñaar topp sa bakkan ne damay planning bëgg a doxal sa dund nekk fa di sëy te doom doo am ñu ne lu tax li nga xam ñëw ak néew doy na loola daganu xaraam na naka noonu tamit amee am nekk sa bakkan bi di fo ba doom juddu wala mu ëmbu nga ne nañ ko liggéey te yàq biir bi lu tax nga ne damay ragal gàcca genn wàlla gàcca ngay daw di wallahi boo ko yàqee da nga daje gàcca gu mag ëllëg ci àllaaxira def gi rek bàkkaar bu mag la nangu tamit ñi liggéey te li nga defoon loolu tamit bàkkaar bu mag a mag la nga boole ñaari bàkkaar yooyu musiba mu rëy rëy la bu la ko kenn jaral bu la ko sa doom jaral bu la ko sa sa mbokk jaral bu la ko sa xarit jaral bul ko yow mi nga xam ne tamit yaa jàng loola ca wàllu médecine bul nangu defal ko kenn seetal sa diggante sa borom lu jar a bàyyi xel la kon nag ray ray doom baaxut planning fen rek la daganee te kenn ci la dagan mooy ki nga xam ne dafa ëmb su ma ne ëmb nag moo kam ëmb bu légal la moo xam bu légalu mooy bu jaar yoon ak bu jaarul yoon médecin bi xool ko xam-xamam may ko ne kii suñ ko bàyyee bu doom ji juddu moom yaay ji du ko fekkee ñu ne kon nañu liquider ëmb bi pour mën a sowee yaay ja moo xam ëmb bi légal na mbaa légalut loolu lépp yoonu lislaam nekku ci bakkan ba lay sowee ko fa daggat na ñu dindi booba la ëmb kooka moom dagat na mu des nag ñàkk legal ga ka ko def bàkkaar ba ko cay gàddu dara wàccuwut ca teqali ko ëmb ba tëreewut bàkkaar baa nga ko xenu ba tey wala ki nga xam ne tey dañoo xool butitu njuréelam mos naa am doom wala mosu koo xam ñu ne butitu njuréelam bi dafa feebul attanu ëmb bu ëmbee rek moom ci boppam du ko fekkee ñu far nag limité njuréelam la dootul amati doom foofa dara nekkut ca wala koo xam ne dafa am jëkkër waaye nag njuréel ga moo jege xat mu jot mu am doom wala ñaari at yu ne mu am doom buy nàmpal balaa feral ëmb buy feral balaa keet ëmb moom du ko fekkee doom ya duñ ko fekkee ci néew kartan ñu ne nañ def luy soril njureel ga buñ ko defee ci garabu wolof tam baax baax na alquran buñ ko defee baax na mën na ko suñ ko defee dem ci médecin tamit mu def luy soril njureel ga dara nekkut ca moo tax yonantu bi doomam yi ci Sayyidatuna Xadija kenn ko ne magee nga sa morom presque ñetti at at mu gën nga am doom nga def lu koy soril kooka moom dara nekkut ca waaye loo waxati xeetu planning nag lu dul ñett xaraam na maa amoon doom bëggatuma amati maa bëgg ñu limité sama njuréel gile lu tax nga ne damay ragal duma leen mën a dundal ak duma leen mën nangam xaraam na foo ko teg yow su buñ la laajee nga ne man ñeenteel laa wala juróomeel laa mbaa juróom-benneel laa ci sama yaay wala sama papa ndax kon yow bu ko sa sa papa defoon da nga judd ko teg du yoon wala ngane ne damaa bëgg a doxal sama biir yanke ndax fu ma nii kat sama jagar jagar yii nampal ak ëmb ak boot xaju ci kon nag fokk ma toog noppalu ab diir juróom-ñaari xat juróom-ñetti xat bëgg cee doxal nangam ak nangam bala nga ma doom nga xam lu ne dana la ca fekk ci xeeti feebar mën na caa nekk loola tamit daganut wala nga ne sama jëkkër dafa tukki kon nag naa dem defi planning man cee man cee sukkandiku di njaaloo nga xam ne du feeñ du ma ëmb mukk xaram na naka noonu tamit amaguma jëkkër naa naa dëgg kon di jëfandikoo loo xam ne mën naa di mooy rek te du ma ëmb xaraam na ak lu ñu la moo xam dañ la ko pikiir moo xam ay doom yooyu naan la moo xam lu ñu la mën a defal ak fu mën a jaare rek loola xaraam na kon kay yow kon planning ngoog ak xeet yu bari yooya moo tax yàlla ne wala wala taqtulu awlaadakum min imlaqin ñu ne ko lu tax mu ne lu lu war la ngeen koy defee mooy problème mu wërsëg te nahnu narsuqukum wa iyaahum bi ci tegu yàlla nee na ñetteel ba mooy mbooleem lu bon lu cay lu feeñ ak lu nëbbu bu leen ko jege waxuma ngeen def ko de bu leen ko jege wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana lu bon nag dafa bari njaaloo bon na sàcc bon na jëw bon na rambaaj bon na kàcc bon na lekk nger bon na dagg bokk bon na euh, tabaarakallaahu yàq bokk bon na ñaawal ci wax ci jëf ci yëpp bon na yàlla nee na mbooleem lu ñaaw yëpp na ngeen ko bu leen ko jege lu tey lu feeñ ak lu nëbbu la li ngay di ko def ak li ngay feeñal di ko defee baleen lépp ba ca tegu muy ñeenteel ba wala taqtulu nafsa lati xaramallahu illa bil xaq bu leen rayeti bakkan boo xam ne yàlla xaraamal ku ko ray bakkan nag bi yàlla xaraamal ku ko rey bari na sa bakkanam bopp bi moo ci jiitu xaru ñëw na kon nga xaru xaram na yonentu ne ku ko def yàlla day wax ne ngaa yàkkamti dajeeg man man tamit danaa yàkkamti mbugal la ba kenn ku ne nam xaroo woon noonu lañ koy mbugalee ci safara bu xéegoon ci am montagne daanu ci montagne ab safara lañ koy def muy plongé wu di dugg biir safara bu dee ci biir géej gi géej lañ ko fay defal mu cay nuq ca biir ba ila abadil abidina noo xaroo rek noonu lañ lay mbugalee kon jëru ko moo tax suñ mbàkki bu sa ba waaj a koy jullee ji di ko yóbbu mu ne kii lan la ñu ne ah moom dafa amoon lu ko naqari moo taxoon mu xaru mu ne fa mu jëm dana fa daye lu ko naqari te du sañ a xaru foofa loolu wax mënu koo gën a foor kon yooyu yëpp lañ ko bàyyi say sa bakkanab bopp bi xaraam na rey bakkanab jàmbur bu la defut dara yoon waxut nañ ko rey nga rey ko xaraam na yooya nag bëri na lool ci ji jamono ku la defut dara ña la ko def mën naa am jotoo leen nga ne naa ko defee kii liñ bokk déedéet di boo ko defee def nga ko ñun ñëpp ndax dund gi ñëpp ko bokk kenn koo ko xeeñ fa mel ni ñëpp nga ko xeeñ moo tax yàlla ko man ahyaha fa ka annama ahya naasa jamian boo ko xeñee kenn rek xeñ nga ko ñëpp moo kon bul foo réew ma la def loola rek ñoom nga ko def déedéet dafa def defaale nga ko nit ñëpp ñay jullit ak ñu du jullit ñëpp dugg nañ ca loola kon yàlla ne na bu leen rey bakkan yàlla tofal ci ne zalikum la bihi laallakum taaqiluun juróom-benneel ba mooy bu leen jege alalu jirim yi nit baayam dee ngay profito di lekka alal ja balaa màgg jël kër yi miite ko sa tur jël suusa moomoo ko lépp xaram na wala taqrabu maalal yatiimi wala taqrabu maalal yatiimi illa billati hiya ahsanu xatta yabluga asuddahu waaye nag ba ca mooy da matal natt yéen commerçant yi natt moo xam pis ngeen ni jaay na mètre ba mat bu fekkee da ngeen di jaay dugub wala gerte na na na peese ga mat na daanu ni nga bëggee ñu nattalee la ko dee ko nattalee buy natt noona buy peese noona na tegu ci maandu moo tax mu ne wa awful kayla wal miisaana bil qisti yëpp da ci tegu ba ci gën a jafe nag mooy wa idaa qultum faadilu bu ngeen ni wax na ngeen na ngeen ca natt maandu tey leen ko ci dëgg kon fukk yii la yàlla wax ne mooy siraatul mustaqim moo tax ba muy daanoo mu ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabiuhu kon nag loo waxat lu dul fukk yooyu rek ñal la kon nag boo bokkaale yàlla yaa ngi ci ñal wa boo dëngee say waajur yaa ngi yoon yu jubadi yu ñal ya boo rayee bakkan ray bakkan bu mën a doon yaa ngi ca yaa ngi ñal ya naka noonu tamit boo lekkee xalalu jiri mbaa nga jege ko yaa ngi ci ñal ya bu boo boo boo mës mësalee ak natt wala nga manquil ko yaa ngi ca ñall ya ah, na ngeen matal kóllëre yi boo firee kóllëre yaa ngi ca ñall ya boo waxee te fekk sa wax gi tegoo ko ci maandu dang nga cay leble maa nga cay fay bor yaa ngi ca ñall ya yooyu daal la ko yàlla boo ko di gollim ba mat fukk kon nag al istiqamatu mi nga xam ne mooy ñaari li maqaama ci maqaamaat islaam mooy fukk yi yàlla tudd ci suratul ah, anaam yooyu rek la ku ko matal daal yaa nga ca ku ko mànkil nekkatoo ci yoon wu jub wa mooy bàyyi bokkaale yàlla bàyyi dëngee waajur yi dañu rey bakkan bu yàlla xaraamal ñi rey ko tabaarakallaahu bàyyi yu ñaaw yi lu feeñ ak lu nëbbu su ko defee timit nag yooyu yëpp nga bàyyi ko maandu ki sa wax maandu ki sa jëf maandu gi sa jëflante bàyyi fi xalalu jirim yi yëpp nga wan ko gannaaw yooyu yëpp nga bàyyi ko xel kon fukk yooyu la yàlla lim ne mooy maanaam siraatal mooy muy siraatal mustaqim ku ca ne ku ko bàyyi nag nekkatuloo ca kon nag istiqaamata ngoog lu jafe la lu jafe-jafe la istiqaamatu boobu wax naa la ko istiqaamatu boobu wax naa la ko moo ci jiitu istiqaamatu boobu nag juróomi sart la am bi ci njëkk mooy jonjoog sunna rek topp ko teet lépp luy biddaa mooy première ba mooy première sarta ba gannaaw bi nga fexee ba rempli fukk yële fukk yële mooy moom mu des nag sarta ya sarta ya juróom la bi ci njëkk mooy jonjoog sunna rek te wan gannaaw biddaa waaye ñaareel ba tamit mooy xam lu bépp xam-xam buy jëriñ boo xam ne dana la mën a dimbale nga mën a xereñe sa jaamu yàlla gi xam lu bépp xam-xam buy jëriñ booy mën a sukkandiku def ko muy jumtukaay bu lay mën a dimbale nga xereñe sa jaamu yàlla gi waaye bul ko def muy jumtukaay nga cay xeexee mbaa nga cay werantee taxu koo jug waaye tamit ñetteel ba mooy e, maanaam jébbalul xool ci sariya ci lépp lu gongee ko ci yàlla ci wax ci jëpp sa sa sa dënn bi léegi béeku ci am na nga koo topp ci lu nekkoon nga koy jéem a taawil taawil lu taawil wut lu yonent bi taawilu waxut ko borom xam-xam yi waxuñ ko yëpp nga wan ko gannaaw ñeenteel ba mooy jëfandikoo asaaru sunna jeexitalu sunna yi ci wax ci jëf ak ci jubluwaay bañ a xóotal ba jéggi dayo bañ a tamit manquil ba jéggi dayo juróomeel ba mooy tabax bépp yëngatu ak bépp dal lépp sag yëngatu ak sag dal rek def ko muy ak jaamu yàlla ci lekk ci naan ci liggéey ci lépp rek def ko muy jaamu yàlla juróom yi mooy sarta yi tax istiqaamatu mën a ne mu xam nag juróomi teggin bi ci njëkk ya teggin ya mooy mutaabaatu nabi fi aqwaalihi wa harakaatihi wa sakanaatihi topp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay waxam ci ay yëngatoom ci ay dalam lépp loo xam ne root na rek tabaarakallaahu baxee ko ci yonantu ba nga jéem caa jëfandikoo lépp loo xam ne nii man nga ko waaye ñaareel ba ci teggiin ya mooy jàpp la gën a limtu buñ la waxee ne la lii wax na lii kii wax na lii borom xam-xam bi jëlal ko ba gën a limtu ba gën a wóor donte moo gën a jafe nga jël ko jafee ko ñetteel ba mooy nga jublu ci sa topp gire maanaam yëngatu ya ak dal ya donte ba ci bépp la nga jublu ci ak jaamu yàlla ñeenteel ba mooy na tabax tabaarakallaahu ak topp ci loo xam ne maanaam dafay dafay tënku yeewu ci yoonu sant yàlla yeewu ci yoonu tamit roy sayyiduna muhammad salaa salaam waaye juróomeel ba nag mooy jañ lépp luy xawaatir yi xelaat yi nga xam ne day gaar ci ak jaamu yàlla nga xeex moom def def la yaag yooyu yëpp nga dàqee ko topp yoonu yonantu bi daqee ko sopp ko kon juróomi sart yii moom la istiqaamatu am waaye juróomi tegginin yii moom la am ba ca des nag ca maratibu islaam mooy taqwa taqwa nag mooy teeta def lépp lu yàlla lu la yàlla tere ak teeta bàyyi lépp lu la yàlla digal lii rek mooy istiqaamatu ittiqaaul maasi bimtisaalil awaamiri zahiran wa baatinan wa ijtinaabul manaahi saahiran wa baatinan lii mooy ijtinaamatu moo tax cheikh ma ngi ko firee ne imtisaalul awaamiri wa ijtinaabu nawaahi min haythu yarda la min haythu tarda kon teeta def li la yàlla tere ak teeta baxi li la yàlla digal jublu ca sàkku ngërmande yàlla waaye bul ci jublu bànni maanaam gërëmloo sa bakkan bile kooku mooy maanaam taqwa taqwa nag tabaarakallaahu boo demee ci taayatu suluk ay maratib la yu bëree bëri yoo xam ne benn bu ne ak tabaarakallaahu moromam danañu wutee waaye xalaa kulli xaal daal mbooleem euh, bu taqwa bi ci ëpp doole mooy ji ibbi yàlla yoo xam ne yaa ayyuhal lazina taqullaaha haqqa tuqaati mooy ba ca gën a ba ca ëpp doole ndax ba ca gën a suufee mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi kooku taqawaa la waaye taqawaawul ama la mooy ngay fàttali ko yàlla doo ko fàtte di ko sant doo ko weddi di ko topp doo ko moy kooku mooy yaa ayyuhal lazina aamanu taqullaaha haqqa tuqaati wala tamutunna illaa wa antum muslimuun kooka tamit moom mooy dugal fa taq wa taqu maanaam wa taqullaaha wala ittaqullaaha mastataatum waaye nag ba ca ëpp doole ci taagetu suluk mooy bañ a benn xalaat Euh, benn afkaar ci sa xol yàlla moo taxoon euh, tabaarakallaahu liyób yàlla bu mag ba daan wax ne walaw xasarat lii fii siwaaka iradatun ala xatiri sahwan xakamtu bi riddati benn xalaat bu dul yow bu tàbbi woon sama xel bi rek ma ma ma ma jàppee sama bopp na damaa murtat kon nag taqwa lu baax la fexe ba ragal yàlla yàlla wax na ko ne inna laa yuhibbul muttaqiin kooku mooy ñetteelu maqaama tabaaraka tabaarakallaahu ci maqaamaab euh, islaam te mooy a taqwa wax la ko taqwa moomu tamit dafa am ay surut waaye taqwa mi le euh, gannaaw bi ay surut moom taqwa dafa am ay teggihin ay aadaab boo ko jëlee tey taqwa nga jël tabaarakallaahu surutam ya ñeent la tegg yéene yi tamit ñeent la suróor ya ba ca njëkk mooy dëddu bépp mooy yàlla ci lu nëbb ak ci lu feeñ ngir sellal ak ak yëkkatiku jëm ci li nga xam ne moom la yàlla jublu bëgg moom la yàlla bëgg moo tax kon al i'raadu an jamii al maasi bil batini wa zahiri tanasuhan anha wa tarafuan ila ma qasadahu min hadratil ubudiyati kooku mooy premier ba ñaareel ba tamit mooy al iraadu an jamii al asbaabi lil muxaalafaati mbooleem sabab yuy waral ak wuute rek nga ba ko ñetteel ba nag mu waasalatu taaat mooy jokkale ak topp rek ci yàlla ñeenteel ba nag mooy imhaadul qasdi lillah sellal ak jublu ci yàlla ñeent yi mooy surootu taqwa tegginam ya ba ca njëkk mooy sàmmuhu te mooy bàyyi mbooleem lënt yi ah mboolem lënt yi ngir ak ragal ak tàbbi ci lu xaraam lu ñu wax dafa lënt rek nga ba ngir ba nga tàbbi ci lu xaraam lu ñu ne dafa lënt ba waaye xam ngeen ne ceinture yi ñuy takk xamoo na der ba deroo ah xamoo der ba dafa dafa médd ñu door koo sëbëj xamoo der ba ci lu xaraam lañ fetal mbaa ñu leen di ko door koo sëbëj muy moo xam derab montoor la moo xam derab ceinture boo takk la yëpp ca maanaam subuhaar ya la bokk yooyu boo sàmmoo dëgg da koy baax ngir bañ caa tàbbi waaye nag warax li muy for ta te al buñ ko waxee mooy tarku shubuhaat xawfan min al wuquu'i fil muharamaat xam na lu ko ëpp mooy arwax arwax nag mooy bayi lépp luy ndesit ci lu dagan ci lekk ak ci naan ak ci solu tabaarakallaahu ah, ak ci wax booy wax la ngay wax baax na waaye da nga caa xaabaabal kooku baaxul ne koo arwax yaa ngi lekk nii li ngay lekk dagan na mais da ca caa yaa ngi naan ndox maa ngi nii yaa ngi nii bala booy lekk fekk suuroo doo bax ah nekkuloo arwaaxu bala ngaa suur nga war a bax te bala ngay lekk fekk xiif nga lool yaa ngi naan ndox maa ngi fi nga ne fekk màndiwuma duma bax déedéet nekkuloo arwaax bala ngaa màndi nga war a bax mais yaa ngi nii ci solu dajale ay yére yu dul jeex juróom benni bataawu yére foo koy sole mag ñi ñaari yére ñett rek xomar keroog bañ ko nomee dafa ne ñaari yére laa bëgg ngeen wateel ma ci bit bi yére bu man sedd man tàngoor ak génn gëléem gu may demee màkk jeex na li ñu de soxla wu ma ko yow nag nga ñuy wateel la oto yu dul jeex wateel la milliards yu dul jeex wateel la tamit tabaarakallaahu yére yu dul jeex kenn koy tamit wateel ko sa bopp juróom benni bataa ci jigéen ñi ak ci góor boo sol toilette solaat beneen ba du jeex kon nekkuloo arwaax ki solu yére yooyam rek waaye yére boo xamee tamit dañ koo ñawee ca kaw kaw ba ca suuf borom sol ko bëgg caméra yi dar ko kooku ku ko jege mu ne yaa ngi may yàqal caméra bi nekkoo arwa billaahi kon nag ndesit ci lekk baaxut ndesit ci sol baaxut ndesit ci naan baaxut leen lu ne ba nga koy bëgg nga ko war a bax léegi nag tamit ndesit yi sax dafa gën a bëri loolu portable yi gis waa joo xam ne ma nga ak ñetti portable yoo xam ne kum ko dóor xaañ la loo koy dooyee ñetti portable nga leen a mën a wuyoo ndoor benn dooy na waaye bëgg wane ni nga toll rek yi nga jël teg fa ne di lagar lagar yi ah, te boo ko gis ñaareel mi ngi bor yu mënta fay ñetti portable demal demal fay ko avance ko ci sa bor yi daa nga yokk ci sa dépense bi moo ko doole ñetti portable loo koy doyee benn bu ci nekk nekk ay tablette foon di lagar lagar yi di bës di xool rek xool loo dul gis ak gis loo dul xool rek moo ca nekk kon loolu jëru ko su ko defee kon nag yëpp jar na bàyyi ñetteel ba nag mooy sóobu yoonu maandu yoonu digg doomu bañ a hëppal bañ a mànkin yow daal fala yu faariqu miyaara sunnati bu ko bu ko bul teqalikoog mukk bul bul bul teqalikoog moom ñeenteel ba nag mooy nëbb ci lépp lu jàppandi ñu war koo nëbb rek nëbb ko waaye lépp loo def ci lu baax bëgg ñu gis ko mbaa ñu dégg ko tamit kooka nekkuloo maanaam dunduloo teggihinu teggihinu taqwa déedéet mooy ñeenteel ba ndax looy wax bëgg ñu dégg ko mbaa nga koy jëf ñu koy gis rek mënoo mukki ci ngistal mbaa nga mukki ci sumaatu muy ndéggtal wala sax mënoo mukki ci lorum nit ñi làmmiñu nit ñi baaxut yàlla yàlla musal ñu ci ci daat gi xam caage ci aju kon nag ñeenti sarta yi mooy sartay taqwa waaye ñeenti teggihin yi mooy teggihinu taqwa yii nag muy ñeent boo jëlee ñetti maratib yii ëmb aadaab yi le ku ko def sa islaam maqaamaat ya dund nga ko maqaama yu mat sëkk ci islam kon islam yombul de wax naa la ko maqaamaam ya tawbatu moo ci waxoon naa la sharta ya wax la adab ya ñaareel ba mooy istiqaamatu waxoon naa la suróot ya ak maanaam teggiinam ya bu ci mujj mooy taqwa wax naa la suróot yi tabaarakallaahu wax la tamit teggiinam yi kii nag muy islam mooy première maqaama ci diine mu dese ñu nag imaan ak ñetti maqaamaam ya taba ba tabaarakallaahu nga xam ne bi ci njëkk ci maqaamaam ya mooy al ixlaas yooyu ñaareel ba mooy as sidqu waaye tamit tabaar tabaarakallaahu euh, nga door a jël nag ñeenteel ba mooy at tumaaniinatu moo ca gën a jafe yëpp ci imaan la waaye loolu ñëwaguñ ci mooy nekk suñ dar soob ëllëg bi waaye tey daal ala kulli xaal jeexal nañ maqaamaatul islaam ci at tawbatu al istiqaamatu taqwa ku ci ñoom wax naa la suróor yañ am ku ci ñoom wax naa la aadaab yiñ am bu ñu fi yàlla baxee suba nag la lañuy nekk suñ bopp darsu mooy maqaamaatul imaan ñett yooya muy al ixlaasu ak sitku ak tumaaniinatu ci ñett ñi tamit xam nga ay surut ku mu ci ñett yi am nga ay teggin bu ñu fi yàlla bàyyee suba mooy nekk suñ bopp darsu yàlla yàlla yóbbu ñu ci defal ñu tawfiix ak taysiir defal ñu naataange barke defal ñu ubbeeku xiir ñu ci boppam lépp lu ñu ci yàq yàlla nañu ko yàlla jéggal te nangul ñu li ci lu rafet ci ñim toll jéggal ñu njuumte yi ak ñu koy déglu fu ñu mën di toll ñuy sàkku ci yéen ñaan yàlla na yàlla ba ñu tawfiix ak taysiir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu